قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن fi nak rajaskat yi ñofi nek nekk itam am taxaway bu am solo ci bis bu tedd bi ci njitu Serigne abdul Ahad kundul mi nga xamne mom lañ jox bërepp bi mu koy saytu and ko ak mbollem ñi nga xamne janggung yëkëti njangum rajas ngeen gis ñu organisé woni kon serigne abdul Ahad ñu ngi lay nuyu di la ziar tay ji yéen ci ndigal li lekkale mbollem jànkatu rajas yi ni ngeen ko doon wajale ak si ngeen ci bis bi taxaway bi tay ji lan nga nu ci mëna léral comme niñ la ko doon waxe rek moy bis bi dal ñu ko and diko defé comme ko bi bëggee bi nu xëyee ba léegi dal bi nu tëlmalee suba lañ maté liggéey bi mbolém jankati xasida yu rajatkat yi ñi ngi ci jataay bi ci tuba ba léegi liggéey bi taxawut ni lañ koy défé ci njàngin mo xam ni ko sëriñ bi bëggé rek non lañ koy mbolém jankati jànkati rajat rajatkat yépp ñi ngi fi wax dëgg yàlla jataay bi organisé nañ ko ci yar ak téggine ñëpp ku ñëw jublu penku ñi yor téen jukki di durut ñi ñi yëkëti di yëkëti ñi téen ku kurus di salatu ala nabi di tuddu suñu borom lool dal moy jataay bi fas ko teg ko nag ci ndigal ni ko tëriñ bi bëggee rek ñu dee ko defee ndax li lu ñu dénk la lo xamante ni nañ ko yéenee taytu comme ni ko bi ñu ko ba lepp mat ñu karba lepp ci kéet ñew jëb jëbul ko tay bu doon xayma tay ñaata kat ño fi tew ak nu ngeen def ba xam lim bobbi lan nga ñuy wax lolu ma ngi koy bind fi ni na na 70 li fi tew ci kat mat nañ 70 ta da nak ci tubaab leg rek la jàngoon ëpp na fuk ak juroom bi bi fi ne Matlabul Fawzayni lañ ko ubbee sëñ Murtala Lo moo ko moo ko yëkkati sëñ Murtala Mbàkke jàng na fi xat dëgg mi nanul baaxil xadim wakkaana xaqan jaali ba tumaraxib yooyu dañ koo jàng waaye nag bu demee ba heure bi nga xam ci waxtu yi dañoo xoj dañuy wàññi temps bi ci waxtu yi jànkat yi kenn ku ci nekk mën a jël feeñ sa yéene ba niñ ko bëggee fekk takkusaan ñu mën a matal liñ liggéey bi niñ ko bëggee loolu daal mooy liggéey bi sëñ Ablaye. kàlla mu nekk liggéey boo xam ne nii ñetti at a ngi sëriñ bi di ko digal mboolem murit yi kon am na junj ab joxoñ ak bëgg-bëgg boo xam ne nii sëriñ bi bëgg na ko ci murit yi muy bennoo àndandoo liggéeyal sëriñ bi balaa xa ngërëmam ban jàngat ak soññe nga koy jox mbokki taalibe yi. waaw mooy yaa rabbi jaxalil muridina maa fii xisnikal xasin wa samlaj maa ci loolu lañ nekk boole gi nu sëriñ bi boole mooy lii ndax boo xoolee yow sëñ Ablaye ci tubaab léegi xoolal jànkati xasaay di ñi wër ñi wër jumaa ji ñi kurel ñi ngi fee ñi ñi ñi jang jangu aw ñi ngi fee ñi ra ñi ngi bi kon nga xandi lepp ci bëggu sëriñ bi la manam bis mo ak toñé ta xamni sëriñ bi sunu sunu dimbal rek la bëgg lii sunu tawfex la ku yëkkati xataat ba daanel li ngi ci war teg mooy ñaanal ko mu yàgg fi tawir ndax li dimbal la loo xamante ne képp ku teew ci jaraay yi da nga xam ne ndimbalu sëriñ bi ak tawfex dëgg moom mo la dimbali ndax jotaay bi ñuko sëriñ bi bëggé mbolem koo wër ci penkup juma bi ak li ko wër jotaay yi nii lay demee lépp ci bëgg-bëggu sëriñ bi ci tawfeexu sëriñ bi mboolem murid daal ñi nga àndandoo liggéey bi di ci doolee sant bu baax a baax a baax tey rafetlu nag yéen seenu doxin bu baax a baax ndax niñ ko ni ko sëriñ bi bëggee yéen noon ngeen koy defee yéen koy ànd ak ak ñun ci tawfeex joo xamante ni lépp tawfeex na wala yakun bi sidqi wal ixlaasi yaa waahibal kafaafi wal xalaati ndax boo xoolee jataay bi nii li ma doon wax ne ka wahab liman yaqra'uhu aw yaktubu xayral mun naa yaa man atani ko dubu ñi jankata yi jaa ngi nii ñi koy yëkkati maanaam waaye nag ñi koy ñi koy bind ñi ngi fi jakkaru ñun nga xamante ni lépp benn la jotaay bi dal comme ni nga ko fekk sëñ Ablaye nonu la démé lepp taw lool jankatu xataay jaa ku ko daanel jox tam rom ñoo ngi ñaan tam xol da tedd ba daanaka liñ bëgg jotta ci kaddu yëpp mënuñu ko waye tam xol tedd na guy ñi ngi lu seen doxine di ñaan képp ko suñu borom dogal nga tew ci bis bi yalla na la suñu borom defal li nga bëgg taw képp koo xam koy and ak ñun di tewlo li nga ci bëgg lépp sëriñ bi defal ko ba nga ci lu kawe ta njortu barka borom ndax adduna tépp ñu ngi ñuy xel sëriñ Ablaye jërëjëf tan nañ bu baax sëriñ Abdoul Ahad Koundoul ci kàddu yi am solo yooyu ci fàttali rek ñu ngi ci bërëb bi nga xam ne nii jàngkatu rajo si ñoo fi daje di dundal euh, liggéey bi di dundal bis bi ni mu ko waxee noonu lañ ko gisee muy organisation bu mucc ayib boo xam ne nii sellal gi lépp rek dafa jëm rek ci ni ko sëriñ bu bëggee waaye wax na itam ci lim bi nga xam ne nii jotande nañu fee teew buñ sukkandikoo ci ay kàddoom la ëpp juróom-ñaar fukk ci ay jàngkat teewande nañ fi te bis bi jeexagul waaye ni ñuy defee njàng mi nose ko nekk loo xam ne ni ku ne mën na cee gis boppam dikk na lu yaatu itam ci bennoo bi nga xam ne nii sëriñ bi namm na ko ci murit yi kon ñu ngi ñaan daje ci ak ngërëmal sëriñ bi di jox dox daje beneen bërëb boo xam ne nii ñu ngi koy dundalee eh, bisub xasida bi fii ci Touba jërë ngeen jëf قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن